léegi léegi dañuy dem euh, ci beneen gox ci senegal muy euh, euh, Mbour waxtaanee lu jëm ci wàllum caada ànd ci ak Abdourahmane Diallo. saa yu septembre jotee mbuur dafay fës ci lu jëm ci wàllum kankuran cosaan wa ñu ci yëngu di ñu ko wax. maam ñi loolu lañ doon wax ëmb bi ñu indaale mooy aada beeg cosaan bi bee naata ñun na wula moom la ñu wax dañoo ñëw ñun ñëpp indaale fi rek suñu ëmb rek la ñu indaale woon ëmb boobu nag mooy aada bi. li tax mu dugg fii dañoo demoon ba jamono boo xam ne bii ah, dëkk bi dafa jaxasoo woon comme lu mel nii am tey ah, mu am ay jafe-jafe si wàllu santé ay épidémie ay ay deeyu doywaar jigéen ñu bari bu ñuy nekk jigéenu wérul balaa ñoo wasin gaañu ñii bu ñuy wasin gaañu dee yi si ndaw ñi bari ñu ne ah dëkk bi daal jaxasoo na kon la nga xam ne dañ ko bàyyi gaabu pakaaw ak ñaani te suñu maam yi doon ko jëfe nañ dellu jëli ko ndax ñu indi ko fii ndax mu saafaraal ñu li ñu li ñu fi nekk looloo tax mag ñi daje woon ah daal di jël Baye Madi Koote yebal ko mu dellu euh, Guinée Bissau dellu ñëw indaale waat nag lii mu indaale mu indaale ko jaaram bu leen ba mu yegg si fii loolu moo tax 1904 la fi loolu dëkk si donc objectif bi ñu ko taxoon ñu indi ko fii mooy fajoon jafe-jafe yi nga xam ne dafa daan woon daloon si kaw askan bi ku wax kankurang di xalaat lan mooy njëriñam njëriñ wi ñàkkul ndax nag am na lu bari lu muy jàngalaate te suñu cosaan si biir Sénégal Afrique dañ naan bu dugub ñore ah saa saa yu bari dañ profité si dugub jooju di am ñoo xam ne dañ leen bugg a boolewaale ndawal si dugub jooju mu am si nag euh, lu ñu gënoon taam mu njulli moo tax bu aada bi taxawee ñu dugal leen si bois sacré bi dugal leen lël géniprotecteur boobu di di kankuran mooy veiller si njulli yooyu di veiller waale si dëkk bi. c'est un géniprotecteur euh, di aar di sàmm ñi nga xam ne seeni waajur wóolu na communauté Mandinka bi ba dénk leen ñi nga xam ne ñoo yor lël yi pour ñu sàmm leen si biir lël pour gindi leen si aadina aada àddina euh, initier leen. si ni ñuy tooge si seer bii ni rawle nag ban toogaay lañu war a am seen biir famille ban toogaay lañu am seen digganteeg seen mbokk yi seen digganteeg seen dëkkandoo yi ban toogaay la góor di am si digganteem ak àdduna. bu njëkk ba nag kankurang ni mu doon mel jamono dox soosey rek moomatuñu li di kankurang li ni mel sax a tax mu amaat beneen taxawaay. bon naka maam yi doon defee euh, ak nañ ko daan taxawee loolu mooy suux bi. mais boobu jamono xam nga ah, suñu maam yooñ fay ñëw euh, ñu ngi dëkke woon këru soose yi fi jiitu ñu ngi nekkoon booru préfecture boo koy xool si jamono préfecture wàcc ñëw ba euh, gaaru Thier kër Vésia kër Chabanel foofu ginnaaw maire yi foofu la soose yi dëkke woon donc yomboon nañu doxal ko te euh, amul woon jafe-jafe léegi nag Euh, fii ñu toll nii surtout Mbour dafa nekk sur euh, nekk la deuxième ville la plus euh, qui progresse le plus rapidement si wàllu démographie yàlla dogal na aussi moomatuñ ko ñun rek dañ koo bokkak waa Mbour bokk ak waa Sénégal ah lëf boo ko yoree ba ñu jëm ne patrimoine mondial immatériel la moomatoo ko ñoo ñoo ko waa mbuur yëpp ko bokk. atum ren ak coronavirus bi wóoragul ba xam atum ren mbuur dina amal kankurang. tey jii toll nañ foo xamante ni lépp luy dajale ay mbooloo dañ ko war a parce que gis nañ ñi feebar bi ñi koy am ci mbooloo lañ ko amee communauté man dañ ko xam-xam ni ñu responsable ñoo ko nekk te yaakaar naa ni dinañ toog ak ñoom waxtaan te décision bu fay juddoo dina nekk décision boo xamante dina yombalal état liggéeyam pour que askan wi mën a bañ a loru ci mbas mi. kankuran doon lu am njëriñ ci communauté mandeng li ni mel sax a tax ñu bëgg a amaat beneen taxawaay ngir mën a defar ay jumtuwaay yi nga xam ne dafay jëm ci wàllum aada ak cosaan luy bokk ci luy gën a doxal dëkk bi. noonu muy euh, élément bi nga xam ne Abdourahmane Diouf moo nu ko defal mu jëm nag ci wàllum kankuran yi ak seen ab taarix mu ngi noonu ngeen di jàkkaarlool Abdourahmane ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Mbour géej yëpp. Euh, maa ngi lay fay Faty di nuyu ñi nga nekkal foofu. Mm, très bien ndaka taw bi foofu ndox mi mbaa euh, kii yu fa ni mel fii ci Ndakaaru. waaw c'est que euh, démb ci guddi taw bi metti woon na lool waaye xamaguñu lan la jot a yàq su mu ne nii arrêté na. Mm. donte sax asamaan ci leeragul. très bien Abdourahmane laata ñu ñëw ci sujet bi ma ñëw ci mbas mi ak foofu ci diwaanu Mbour gis nañu euh, ñaari ay bés yi nu génn euh, euh, kaay foofu ni mu fa demee woon jamono jii fan ngeen toll ci xeex bi wala boog situation actuelle surtout fait le point lan lay doon. tey bu ñu waree def le point. am na ñu lu ëpp ñetti téeméeru cas fii ci département bu Mbour te ci fàttali tamit département bi bokkoon na ci département yi njëkkoon a enregistré cas coronavirus waaye tamit ci jamono ji nii lépp li nga xam ne moom mooy ay cas communautaire fekk nañ ko fii ndax doo toog benn fan bi nga xam ni euh, Mbour amul cas mu doon mbir mi nga xam ni sensibilisation bi nit ñaa ngi ci waaye teewul am na ñenn ñu bari ñi nga xam ni lu jëm ci wàllu masque ak li ni mel farataaluñu ko moo tax it cas communautaire yi bëri na fi euh, defe naa kilifa euh, yi sax li ni mel a taxoon ñu daal di amal waxtaan ci jeudi bii ñu génn ngir ñu jéem a xool ban taxawaay la ñuy gën a amaat ngir mën a xeex euh, mbas moomu ndax mbas mi mu ngi am place bu importante fii ci dëkk bi Fatou. yaa ngi nekk équipe bu matinal euh, bu télévision Futurs Médias muy info du matin du Fall Cheikh Tidiane Diaw Chérif Dia am na ñoo xam ne nag ñoom mbirum kankuran da leen soxal Cheikh nag am na ay question yu mu doon laaj ñu bàyyi la ak Abdourahmane comme tu ngi waaw Abdourahmane euh, comme ni ko Faty waxee déjà foofu ca gis nañ ni euh, surtout ci septembre bi ñuy dëgmal dañ doon faral gis manifestation yu bari euh, ci wàllu kankurang léegi nag décision jib na je pense que dañu ni yooyu yëpp dañ ko bëgg dakkal décision boobu sa passe comment nan la ko population bi ak ñi nga xamee ni ñoom la soxal directement naka lañ ko accueillir ak ban taxawaay lañ ci fas yéene am Euh, chef yi mu ne nekk nii mën a bu ñu wax ni décision dafa jib ngir euh, dàkkal li nga xam ne moom mooy kankurang bi ndax préfet bi euh, dafa ne fi mu ne nii dañuy amal waxtaan bi nga xam ni dafa jëm ba xam dina dinañu dàqal kankurang bi waaye boo seetloo arrêté ministre Aly Ngouille Ndiaye bi nga xam ni génn na fan yële passé dafa ne lépp li nga xam ne moom mooy rassemblement ak xeet gi ni mel fi mu ne nii dañ koy dàqalu fi ak ñetti weer loolu benn la ci mbir mi nga xam ne mën nañu njortu ni Euh, mën na am concurrent du am waaye teewul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk communauté mandeng maanaam kilifa yi ñu ngi toog di waxtaan ak euh, seen seen biir ndax euh, boo seetloo li jëm ci wàllum concurrent mag ñi ñoom ñoo ci am décision daal di waxtaan ak autorité administrative ñu jël dogal bi nga xam ni moom mooy lu gën dogal bu gën mën na nekk ñu bàyyi waa concurrent continuer li nga xam ni moom mooy seeni activité ndax ci reportage bi yaa ngi déglu ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bi di xam ne ni contexte kankurang bi muy ñëwee genre contexte euh, mbas mi la woon maanaam ay feebar ay jafe-jafe yi nga xam ne dafa doon am ci dëkk bi ñu daal di génnee li nga xam ne moom mooy kankurang ngir xeex euh, mbir moomu waaye fi mu ne nii mën nañu wax ni euh, autorité administrative yi ak collectivité mandingue ñu ngi daal di waxtaan euh, ngir jéem a xool ban décision la ñuy mën a jël waaye nag ku wax kankurang wax rassemblement ku wax feebar xam li feebar bi lépp li nga xam ne rassemblement loolu lay bañ waaye fi mu ne nii euh, mën na am fi ak une semaine dinañu daal di jël décision finale xam ba xam kankurang dina am wala boog concourant du am waaye kilifa ki nga xam ne moom mooy préfet bi comme ni ko waxee ren jii nii lépp li nga xam ne moom mooy rassemblement dinañ ko jéem a moytu Cheikh. merci beaucoup Abdourahmane euh, Diallo ñu lay ñaanal une très bonne journée di ko ñaanal waa Mbour yëpp di leen jaajëfal ci sapo bi ak kóolute bi. jaa ngeen mu ngi noonu Abdourahmane Diallo la woon euh, toogal groupe Futur Média ci diwaanu Mbour Géej moom la ñu àndaloon euh, ci culture tay bi muy lu jëm ci wàllum caada mu doon waxtaanee kankuran euh, ak taarix boobu mu am foofu ci diwaanu Mbour tout de suite on va au Mali faire le point avec Lamine Sibi